waaw asalaamaaleykum waa ngeen di séeréer ñu ngi leen nuyu kenn ku turma sanam di leen jox seen wàcc waay rek waaw maa ngi tudd Padiène lañ ma gën a xamee fii si dëkk bi ñu ngi nuyu ñëpp sant ñëpp waaw di ñëpp ñu teew si bës bi ñu tew ñëpp ñu leen di gërëm di leen sant waaw di wax rek waaw ñun ñoo war wàllum gise bi waaw muy wàllum lamb ji gise fi lamb ji rek ñaari gise fi ne waaw ñaari gisa ñoo fi ne mu ngi am trois portes waaw ñoo nekk si lamb ñaari gise fi ne wax dëgg yàlla ñu ngi sant ñëpp gërëm ñoo wax leen démb lamb ji moom macha allah démb macha allah doxoon na nu mu war a doxee waaw ñu ngi si sant yàlla bu baax baax yam waaw démb moom gis nañ bop bu baax baax gis nañ suñu bopp loolu ñuy wut si làmb dem gis nañ suñu bopp waaw ñu leen wax rek waaw ñun fair play la ñu wootee doo déggee ñuy woote lii woote jàmm la pour ñëpp xam ne affaire bi de ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi waaw doo déggee ñuy woote ak làmb nekk pour xeex doo ñoom tax ñuy woote yooyu fair play moo tax ñuy woote ñu xam ne affaire bi affaire cosaan la fii leen ko fekk ko fii kon bu ñu koy def rek jàpp ne instant nii pour bëgg-bëgg askan la pour askan bi jàppante ne ah affaire bi ñun ñëpp ñoo ko bëgg ñoo ko bëgg kon ñëpp lu ñuy def na ñuy xàccandoo di dóorandoo moo tax ñu organiser lii tey mooy dernier jour bi muy final bi waaw ñuy ñaan ñëpp rek ñu dugg sa bisimilah rahmaani rahiim gis sa alhamdulilah rabbil alamin loo xam ne lu ñu si seen su lu baax rek yàlla suñu borom sottil ñu ko mu nekk suñu njëglaay ñu ngi gërëm ñëpp sant yëpp ñu am kontaan bu baax a baax rek waaw ñu ngi am kontaan bu baax a baax a baax a waaw ñu ngi gërëm ñëpp sant ñëpp am neen kontaan bu baax a baax waaw de kontaan nañu baax kontaan nañu baax si bés bi waaw salaamaaleykum mbokk maa ngi leen di nuyu di leen sant man la Ngor juuf dëkk Kër Mbañ Diop. waa lamb bi comme niñ ko waxee rek ñetti port ñetti gis ñaari gisee la ñetti porte waaw dem moom amoon nañ satisfaction par rapport ak ticket yi quoi mais xam nga des fois arbitre yi noo xawoon ya defar lamb ji quoi yaam ma gën a xam waaw. démb arbitre yi daa mel ni ñoo bëggoon yàq lamb ji ndax am na combat yoo xam ne wax ne ay set na ci setul. waaw loolu moo doon daal moo doon li ñuy doon yëngal làmb bi mais alhamdulilah loolu jàll na tey amul problème waa ñu si sant yàlla bu baax a baax a baax waaw ñuy ñaan yàlla rek mu gën ñoo yokk am yokkute quoi bu baax waaw merci beaucoup. salaamaaleykum mbokk yi tey ñu ngi fi ak waa Wassare Lamb fi ci Nguindine Séré ñu gën koo xam ci kën Mba Diop lamb bi doon na mercredi le 4 poussière amoon nañ 158 litres raw gadu amoon nañ 68 litres. poids légers yi amoon nañ 22 euh, lutteurs instant yi ñu ngi ci huitième de finale yi donc dañuy continuer nii huitième de finale ak ak waa di ñaanal jàmm. jinna noon santa a noon gidma noon to yakara noon yakara bin ban diob gidma wajures ɗik santa a si tosar a paax fe andoona ten ref BS mi Ablaye Sarr Aliou Niane fene saqna mi problème geenu fo ten in fo ten jege ka i ñooweerna njom ne yit wax dëgg yàlla njom so refi mbiño lakas mbin ban diob ten andum ten refum bo faw miñu yooyit i o ñoow faako mais sant a yit waajur ke mi ndef na kam mbind ma Njob fop gidma den sant a den roog a tax yasam njom neke roog a isena in ba ta ref njom na andoona yee in xoqooxood in xan i ndet bo mbakaayo ten combat combat combat ndeta bo mbaga ten aren na roog a waagan yasam roog a isena fi in sant am fopit sant am we andoona yee den yoonidu fami tout sant am a ye'es sant am a Ya Ndefes tout o oh, fog fa pes jegan sarr me sante'an a paax a paax paax gidman to yakaran a paax a paax i sant am président fe Mamadou Diouf normal wargal yaam roog sen a dimle in a paax a paax i yaam roog sen a damta in nu mbaasanaam xaq fa lay koy waaginum a paax kaaga yoon merci nu mbi'angoor a paax jërëjëf vraiment kontaan na trop kontaan na trop no saate fe waaw ke i atna tamit i ngeefaan trop vraiment i mbaagan te xup neeke waaw mais maxey fop xa teɓ i ndefu koy i mbaaga dara waaw nda daal ta moƴo mayit mene daal inchallah maxey gidma nuun sant a fop ah, o Seynou Faye o xaagara eh! Señor. me llover. ginnaaw raw gaadu bi moo nekk noonu ñaari mbëri nag xaw ma kan la xanaa bu ma jegee table technique bi ma laaj leen mais pour l'instant ñaari mbëri yaa ngi ci digg géew bi di lewtoo jëli na ko da lay jàpp bu la jàppee mu jeex songule na ko songule na ko songule na ko eh songule ko fayu na waaw da koy songule ba wàcc ko moom mu fay songule waat na ko da lay yóbbu da yóbbu da daan da lay daan daan na la eh, na suuf taq na suuf li lan la nii daan na ko. voilà. mu ngi noonu mbokk yi. arbitre sifflé na bi final bi ci la nekk. Pape Maroon moom moom moo ñu wen càmmoñ. Lion Raay moom moo ñu woon ndijoor. ñaari mbër yaa noonu. muy. final poids léger bi ñu gën koo xam ci tànk yi Pape Maroon moo ñu woon càmmoñ Lion Raay moom moo ñu woon di joor Pape a ngi sëgg ci ay tànkam Lion Raay a ngi ne tekk di ko déglu jat na ba pare diwoo woo raay tànk ya xëpp ko ko lépp ci ay xar fa fufa la Lion Raay Pape Maroon ba léegi kenn songagul kenn jëleegul waawa waaw ñu ngi leen di yuuxu bëre leen. waaw Pape Maroon daan na Lion Raay Pape Maroon daan na Lion Raay jël ba le dama rëcc. demi-finale lourd diggante Abou Assef ak moo ñu féete càmmoñ Abou Assef moo ñu féete ndijoor mbokk yi ñuy jégalu bu baax a baax baax si final lese bi nga xam ne ni dama ko perte. dama doon wekki batterie sama batterie lumière bi moo fay ma doon changé batterie far mbër ma daan ko daa bàyyi ba may changé batterie ñoom bëriwuñu bàyyi ba may changé batterie ñuy soog a bëri daanante Ablaye Ndour à gauche Abou Assef à droite Abou Assef moo moo ngem boo ngembal wala le gauche man ñaare dama koy jaawale ñu ngi noonu Abou Assef Ablaye Ndour bu ACF Ablaye Ndour attention Ablaye Ndour da koy bëgg a manuel waaye abu ACF bi hey miin na drapeau chef de l'État abu ACF mi miin na compétition yi Ablaye Ndour abu ACF attention Abou Assef mu ngi koy war ndombo Ablaye Ndour bañ na hey Abou Assef war na ko ndombo Abou mu nga am final. deuxième demi final ba ngoog diggante Basirou Samb ak Abdou Bakhe Gueye kan moo ciy kan moo ciy Abdou Bakhe looloo yi waaye dinaa leen ko laajal. Basirou Samba Abdou Bakhe Gueye deuxième demi-finale ku daan fekke Abou Assef Basirou Samba Abdou Bakhe Gueye Basirou Samba xewagul arbitre ba sifflé waat na diggante Basirou Samb féete càmmoñ ak Abdou Bakhay Gueye féete ndijoor Baye Bass sama turandoo dañ laa jekku sànq eh eh wala arbitre ba sa waay ngàdd na ne ndànk eh lam xëy bi arbitre yoonam ci avertissement moom ma jël rek la fi nekk bu mu sifflé bu mu woote waat attention Abdou Bakhe jël na Basirou Abdou Bakhe jël na Basirou Abdou Bakhe jël na sama tooma sama tooma rëcc na Abdou Bakhe Gueye Basirou Samb eh doo ci rëccaat doo ci rëccaat doo ci rëccaat oh Baye Bass doo rëccaat fi la Abdou Baaxe yegg eh jóg na jóg na jóg na jóg na daan na ko oh Abdou Baaxe daan na Basirou Sam. jëf mbokk yi ñuy suivre ci wasaare lamb comme ni leen koy defalee saa su nekk wala weekend bu ne samedi bu wala dimanche bu nekk tey mbokk yi ñu ngi ci Guindine séeréer nekk ci région bu Fatick communauté rurale communauté rurale bu bu Mbélacadiao commune bu jaxaaw tey gala bu rëy bii final ba jeudi la commencé ci tànnibéer bi nga xam ne moom la ñu may soxna yi vendredi ñu entamé lii di tànk yi ak lese yi tey la final yi bëri nañ final tànk yi bëri nañ final poussière yi final lour bee nekk nii diggante Abdou Baaxe Guèye won ñu càmmoñ ak abu Asef ngemboo ngemb lu vert li ñaari mbër yaa ngoog dañoo bëgg mu gaaw dañ ko nar a gaawal Abdou Baaxe ak Abou Asef Abdou Baaxe loxo ba doxatul day génn ca biti arbitre du avertir ndax xamu ko arbitre du la avertir ndax xamu ko moo dula avertir day sifflé moom jël bee ko fi tax a toog bu ñu daanee bu leeree mu joxe victoire bu leerut mu woote waat Abou Assef baax Baaxe Gueye ñu ngi noonu Abou Assef Abdou Baaxe Gueye jàppante nan fii mbokk yi mooy gindin séeréer gox boo dem rek bañu làmb ba noppi dangay ngay yaakaar ne fa làmb dàqe attention Abdou Baaxe mbot na ko Abou Assef colal na ko bàyyi na ko wër ko ndombo lan lay def daan na ko Abou Assef daan na Abdou Baaxe Gueye Abou Assef daan na Abdou Baaxe Gueye laa ilaaha xale bi yee mën a bëre kii moo mën a bëre waa dama ne salaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum mbokku Fatick asalaamaaleykum waa Kër Mbagne Diop man tey dama am kontaan bu rëy yaakaar ne yaakaar naa ne lamb ji ba ma koy tëgg boobu ba léegi yaakaar naa mu ngi mot si cinq ans ma si kontaan bu rëy nag parce que lamb ji man dama ko bëggal sama bopp man maa ko bëggal sama bopp man Paalo mu doon lamb mu ma saf itam waa dëkk bi nag aw ma seen fay ñoom dañ ma bëgg te yàlla lamb ji yaakaar naa ne man lamb yi may tëgg yëpp lamb ji laa siy gën a sentir donc man waa Kër Mbaye Diop aw ma seen fay di si kontaan bu baax nag leen di wax ne ba déwén incha allah wasaare lamb nag man ñooñu dañoo xew si jamono ñoom dañoo xew si jamono nañ leen jàppale te xam ne ñii ñoo xew man dama kontaan si yéen jërëjëf wasalaam. rajo bi du ñëw jël rajo bi. ngeen jëf mbokk yi yéen ñi ànd ak ñun ci wasaare lamb gis ngeen lii moo xewoon fii ci Ngindin Séréer ñu àndoon ak yéen ci lamb yu neex yi combat yu neex yi ndeysaan dama leen di jox dig daje ba ëllëg incha allah foofee ci arène nationale bu nu ca yàlla yóbboo diggante Franc ak Bébé Saloum cey loola